tey su may war a wax bi ñuy ànd man Abdourahmane Fall Tilala Massamba Babi Souma et autres euh, def na au moins tey on avait 16 ans 17 ans bi ñuy ànd ba léegi kon tey soo ko doon xool euh, bientôt plus de 45 ans ñuy ànd ak Abdourahmane Fall. dañu am benn groupe WhatsApp ñun ñi daan ànd bokkoon ak Abdourahmane Fall bobu ndeysaan yalla na ko yàlla xare àjjana Ben, ben association bu ñu doon Mary Merry Boys les joyeux garçons et eh, ci biir groupe WhatsApp bobu lañu suñu benn xarit bu nek Paris Malick Diagne moko yek yëkk dugal ko ci biir ne fay vérifier information bi aussitôt suñu benen xarit bu nek Lyon eh, Laye Maba ablay Sare ablay Diop woñu ne ñu mais ne li may dégg lan la ñun ñëpp aussitôt on a réagi et on s'est rendu compte ku nekk soo ubbee réseau yi rek commencé gis ça donc vraiment panique samba Sarr était très ému mais kooku ñu ko annoncé ak ay jooyam moom tam parce que ça lui a rappelé beaucoup de choses. Malik Diagne nous ñu annoncé ak Ablaï Diop ñu koy woowee Maabo ñoom ñaar ñëpp sur ci réseau bi dañu jooy parce que proximité bi ñu avec ak mais surtout ki joy li tax mu joy dafa gëj a gis Abdourahmane Fall dafa ko gëj a gis parce que mom il vit en France et hmm, kérok bi ñu euh tassank Abdourahmane euh, yandok mom nak suñu benen xarit mo moo fi euh moktar Mbaye invité ju ñun ñëpp pour ñu célébrer ko waxtaan ak suñu xarit bobu mom daf ko raté won parce qu'il était en France et lolu daf ko naqadi donc bi dafa gëj gis euh, Abdourahmane ça fait presque 25 ans gisul Abdourahmane chaque fois que je su à Dakar Abdourahmane était occupé à autre chose et ensuite tay mu neex mu naqari Abdourahmane Fall Tilala tey euh, kilifa diine la woon et donc euh, ses occupations étaient tellement chargées tellement occupées que c'était pas évident tout le temps que mu mënoon gisanteeg nit yi et donc ça affecté ñi nga xam ne ne la

ñun mi nga xamne dañu mag ak mom xam nañu lolu gis nañu loolu te yalla nak moy def eh, ci digënté bi am nañu xamne ñi ngi ci politique bi am nañu def médecine am nañu def nek nek ci euh, organisation internationale yi mais mom très tôt yalla daf ko xir ci limu nekkon mu nekk kilifa diine jangi alxuraanam parce que euh, li wolof ndjay di wax rek doomu kani kani la doomu ñe ñel eh, euh, par ses origines ni rek la mënon men donc surprendre ken mais il a toujours su garder cette modestie, cette humilité. Mais vraiment des hommes vertueux, valeureux. Euh, Abdourahman, lui, dafa mës nekk ci moom mais euh, perte bu metti la euh, parce que surtout pour ñun mi nga xam ne ne bi ñu amee euh, fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn maa ngi fàttaliku jour bi ma ñëwee di dugg ci association bi mu ne mais booy bi du fi dugg ah duñ ko nangu <laughs> ndeysaan euh, moo ma féete mag moo ma féete mag je pense que moo ma mag trois ou 4 ans moo ma féete mag mais euh, ni nii la mës mel euh, nit ku généreux nit ku baax xaxataay foog nit ci par la suite ñun dañu dem ba am sax gêne parce que Abdourahmane bi Magandol, ak ci laal la bi ñu gis après par la suite mais dañu changé dafa dafa demone xam nga amna lo xamne yalla koy def ci nit c'est inné batine fu mu nekk dafay feeñ alors dafa am loo xam ne yàlla moo ko def ci nit euh, charisme bi majestuosité bi euh, timidité bi surtout euh, ce qui a surpris parce que ku ko xam sama xarit yi ba lay wax Gabi Diouf maago boobu di saboté teg moom guddeeg bëccëg ñu ngi xooloo ñoom ñaar kooku dafa jooy démb ba waa détaillé donc nos amis là Lamine Niang fi ñu toll woon ak moom on est des fois sax c'était gênant su suñu tasanteeg moom xam nga réminiscence day am da ngay tasante moom mënuloo bañ a delluwaat euh, jamono et donc soo gisee nit ki c'est extraordinaire Il ko yàlla il avait un cœur extraordinaire il avait un cœur d'or man euh, dans le groupe bertul ñu que que je sois dans les affaires parce que j'ai toujours été oui business dugg fi quand les gens étaient occupés à être euh, secrétaire général ou président moi je je m'occupais de la caisse donc <laughs> j'organisais Bon, lui, organisation, il aimait ça. Euh, il avait le réseau, il avait le, contact facile avec les gens, euh, invité Ni. Euh, à l'époque, il y def ñu wooye ay fusion il ngi pas pat d'éléphant yi ba élargi eh, donc euh, on a passé comme on le dit on a passé notre jeunesse mais dans l'éducation dans la piété hein, parce que loolu ñu doon def aussi su waxtu julli pas ñëppay taxaw dem japp Julie ñu julli eh, am na Mamadou Bathily Yalla ko Yalla yërëm te yeex ñu bu ñu daan jité mom Abdourahmane Fall daf ñu daan jité euh daf ko daan def euh way eh, donc chasser le naturel il revient au galop eh, li nga xamné ne ko namp du du deñ donc motax ñuy wax né li bertul ken pour ñun ñi nga xamné né demb ay nitam nañu won et mu koy fàttaliku tay réseaux sociaux yi génne nañu ay photo yo xamné ne suñu bande bi yëpp ngi ci mom ma nga ci euh c'est extraordinaire donc euh, fàttaliwu tey li ñu mën a fàttaliku ci moom mooy mooy dee bu berte la yal na ko yàlla xare àjjana wax ci accident mais le personnage aussi il était tellement discret et et puis bari sutura sutura bobo mu mës a doxalee euh, ci ci ci euh, ci ci magam sutural na ay nit guddi dem na ba fa fëgg nit kenn yëgul li Cheikh Al Maktoum daan def daf ko def guddi jot na ba tey mu mu mu mu dem fenn def fa lu mu fay def discrètement dem yoonam dimbali na ay nit ba tey Abdourahmane Fall day bokki poosam dox la ko continuer dem def na ko ba tey. Euh, franchise loyauté amitié joyeux plein de vie hmm. kañaan musul nekk ci moom. nit ku baax la woon Abdourahmane foo ko fekk mu ngi suuri man xaw ma ko leneen ñun ñi grandir rek moom loolu la ñu retenir de lui Massamba Sarr bi nga xam ne ne xam nga ko bu baax mu nekk ak yéen Dakaractu moo andi Abdourahmane Fall ci groupe bi xaritam la woon moo ko fi andi eh, Abdourahmane mi ngi dëkkoon Grand Dakar fii ci wetu tey xayma bi deuxième rue après xayma bi foofu la dëkkoon. Nous ñu une zone A église Sainte-Thérèse et kër gi fréquenté en face église Sainte-Thérèse bi presque le siège euh, de notre association euh, man euh, bi ma koy xam mais puisque dama doon ànd ak parce que sama taay moo taxoon ba pour donc dafa dafa am dafa yàgg am fulam eh, loolu la wax maa Samba sa mu ne ko mais booy bi du dugg suñu association xale la <laughs> ma ne ma ne maa eh, waaw mais ki booy kat ba bëgg ma interdire association mooy kat quoi donc eh, noonu nañu xamante par la suite bon deux heures trois heures de temps plus tard il avait oublié tout ça nekk un homme euh, exceptionnel il nous faisait rire parce que Abdourahmane contre par la suite ak ni mu mel mais dafa mënoon raconter des histoires et des anecdotes mais dañ daan reetaan ba mari détaillé et hier Abdoulaye Diop bi ba lay wax mu tudd Mabo c'est son surnom loolu la doon fàttali lu démb mu ne mu ne fi ñu jaar ak moom ak ak xaxataay jusqu'au boyau c'est-à-dire euh, Abdourahmane Fall euh, dafa amoon benn surnom ñu ko daa woowee Muqidaani Fall Muqidaani et et mas moo ko ko tuddee woon ak euh, Mabo boobu mais mais mais c'est-à-dire on a passé des moments extraordinaires parce que euh, on avait trois mois de vacances trois mois de vacances et euh, la nuit blanche euh, mais nuit blanche ay may rek la mais dañ daan ba extraordinaire donc on ne peut pas ne pas penser à tout cela on a vécu entre 16 ans 17 ans peut-être euh, ba am ay ans 24 ans la preuve ba léegi nee naa ñu ngi am mm, et ça on, on le doit aussi à un de nos amis euh, Moktan Bey, mag suñu mag la suñu xarit la qui a jugé utile de de créer ce réseau là ñu am suñu euh, groupe WhatsApp di ci waxtaan di ci di ci raconter ñu tam suñu histoire yi suñu anecdote yi di ko mais moom dañ ci groupe WhatsApp bi mais dañ koy draye dañuy dañuy saboter ci biir groupe WhatsApp bi di di ko tudd donc di fàttaliku jamono quoi. jamono bu bu bu rafet mais daal li ma la mën a euh, wax tey euh, kilifa la woon tey yàlla moo ko def ci moom euh, yàlla defoon na ci moom baatin parce que ñi mu àndal tam et puis gis nga lu dëkk rek sax na Abdourahmane am na jikko mën nga ko nëbb quelque temps mais mënoo ko nëbb tout temps mais lu ancré la woon ci moom ku ragal yàlla la ku amoon baatin la ku jege boromam la woon comme j'ai dit, hein, euh, on a vécu ensemble pas tout le temps euh, parce que ci diggante bi il est devenu ce qu'il est devenu les autres aussi étaient occupés à faire autre chose euh, de temps en temps récemment bi mu tuddee bi mu Massamba Sarr mariage d'homme bu fa yendu donc on a passé la journée avec moi, euh, on a passé ensuite encore euh, euh, des occasions c'était sur la campagne électorale il était même mal à l'aise Abdourahmane chef religieux c'est pas un politique c'est c'est circonstances yi moo tax mais seetlu naa ne li doon occu préoccupation mooy Sénégal am bi ñuy mujjee tasante ma ak moom ci benn campagne la woon à Thiès mais mi ngi wax né inshallah rabbi dara du jib te élection yi dinañ ko teg ci saraatal mustaqim te dara du am donc euh na ay conviction gëm nako et puis il aimait son pays aussi parce que mu neex mu naqadi on disait qu'il faisait partie de la communauté Mour mais Abdourahmane ken gënu ko nek Sénégalais ken gënu ko woon nekk Mouride kenn gënu ko nek nekk donc xoolal tey ci ni mu génne àdduna dafa doon dem je pense pour la doon dem Abdourahmane Fall bi ñu xam ñun euh, qui aimait porter des euh, c'est dommage que andi costaram et cetera ay pas d'éléphant est suba teel mais verse carrément dans l'autre extrême bon euh, ñun ñëpp on ne réalisait pas ça nous avait un peu heurté mais on fait avec les moyens ben, on fait avec hein on se rend compte que moi, li may wax sànq ne lu lu ne jikko kenn mënu ko neub euh, mën nga nax nit ki benn yoon une heure de temps deux heures de temps deux jours mais on ne peut pas tromper tout le temps tout euh, tout un peuple c'est pas possible à un moment euh, da ngay gis sax nit ki di muy transformé parce que da ngay xam ne ni lii lu naturel la et lu dëgg la donc Abdourahmane loolu lu muy andi et puis ensuite sur nañu même sur les anecdotes soo ont wéetee ngeen di un DNT mais quand donc orma bi da nga ko koy jox effectivement te musul def lu ñaaw lu war a tax ñu xeeb ko donc euh, lu yàlla def ci moom la yàlla mooy soppi nit moo ko soppi euh, yóbbu ko ci loolu ah euh, su ma bàyyi li ma doon wax de nee na ma sooy sooy sooy sooy ñëwee nit na fekk ni moo la ëpp diine moo la gën a jege yàlla mais loolu rafet nañu njort ne Abdourahman mu ngi tegoon tànkam fii ay maamam ak ay yonent bi tegoon seen tànk mooy ci siratal mustaqim li Sénégal yi war a jàngat ci Abdourahman Fall Tilala mooy ku ku gëm mbokk la musul xalab njabootam ak mbokkam mosul xalab amitié mi ñun mi daan ànd ak moom démb dara xewul respect bi def ci yàgg am gëm na réewam gëm na diinam te mi ngi ci nekkoon nekkoon dogu ci mais jaralu ko woon n'importe quoi amoon na cette humilité ak maanute bu lépp loo xam ne ne boromam la ko sant mu nekk ci lépp loo xam ne ne la mu teg kon Abdourahmane mu ngi jox ay leçons de vie yu extraordinaire yàkkamte bi jaax rafetul baaxul lépp looy tal na fekk ne mu doon loo xam ne di ci am ngërëmu sa borom di ci am ngërëmu say waajur dogoon na ci lenn ci discrétion loolu gëmoon na réewam kon li may mën wax askan bi mooy li nga xam ne lu fondamental la mooy amour bi ñu am ci suñu réew bi euh, mën nañu am ay adversité mais sur l'essentiel nañu nekk benn parce que Sénégal bi benn bopp la Abdourahmane loolu la gëmoon yàlla ko yàlla doli sutura yàlla na ko yàlla euh, xare àjjana bi jaay Seydou Oudiour et puis may njabootam luñ ko mën a muñee waaw parce que c'est pas évident d'avoir un père pareil et puis euh, bu parewul woon parce que daf leen ne demal maa ngi dem te ñëw Eh, eh, tàggawul ak soxnaam si génn àdduna eh, yal na leen yal na ñu xippe ñoom ñëpp àjjana yal na leen yàlla yal na leen yonent bi sallallahu alayhi teeru waaw ki mu gëm tam Serigne Touba yal na ko taxaw tey fa mu nekk yal na ko yàlla taxaw yal na ko Serigne Touba taxaw.